am bikum Aliou Sall rakk njiiti réew mi Macky Sall coow lu rëy topp na ko enquête yéen a kaay moo ñu ko xamal problème bu mag mbir mu garaaw yëf yu doy waar lañu ñu ko tuumal mais moom la def a yaw seetal waa BBC Afrique ñoo soupçonné Aliou Sall ne fa jël li ñuy wax pot de vin mbiru Petro-Tim bi lu tolloog fukki milliards dollar loolu kenn xamul ñaata suñu xaalis moo nekk enjeu manaam yëpp moom la ëmb l'observateur na ko waaye may ma détaillé yëf yi Aliou Sall fa jot deux cent cinquante mille dollars ci Frank Timis moom nday mbi ligi nag Aliou Sall nee na loolu xamut fañ maa tooñ bëgg yàq sama der te kenn defut ko lu may waa BBC lëkkaloo ci ak ñenn ci ku jégi enquête yéen a kaay na Aliou Sall nee na fay porter plainte waa BBC Afrique ñooñu nga xam ne ay journaliste lañ xam nañ tele am nañ rajo xibaar yooyu ñu joxe nag Aliou Sall nee na amut ci l'observateur nee na li ma gën a métti mooy seen reportage bi samay noon rek lañ jox micro ñuy wax xam nga ne ñooñu duñ wax jàmm ci man waaye yaa yi mel ni ku naan dañoo maar ci sa lay yi xam nga luñ bëgg nga xabal ñu tekkil sa ndomba tànk ca caisse de dépôt ba ndax lii dafa garaaw pot de maanaam ñu neexal la nga signé loo warta signé wala ñu neexal la nga def loo warta def wala ñu neexal la nga jox leen marché signé ñoom contrat boo warta signé wala na nga ko signé baaxut ci réewum Sénégal loolu daal ci gàttal mooy pot de vin alal jox xam ne fañ la ko jox te lewut jaarut yoon moom lañ ko jox nee nañ Aliou Sall Vox Populi dëggal ko na waa BBC yi ñoo joxe xibaar bu garaaw bi ni mel fi mu toll ni nag yëngal na réew mi am Aliou Sall andi Aliou Sall rakk njiit réew Macky Sall def na lu jaarut yoon jël na ay milliards ay millions jaar na fi dugg na faa moom la réew mi yëpp di coow deux waaye laas yéen a kaay nee na nday mbi Aliou Sall ma ngay sangu lu mën ngir seet wecc ci tuuma yi vox populi mel ni ku naan ko na jënd saabu bu bëri ndax pétrole bi moo ko takk pour mu sangu ba set du yomb de nay leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñu ja mooy ne la sala yéen a kaay séq na waxtaan ak Aliou Sall mu weddi ba tëdd ca naaj wa ne waa BBC li wax amut te ñoom xamuñ ne OFNAC jot nañ ci xibaaru lépp lu jëm ci sama ko wax xaalis ba ko ndax santoon ñoom waa OFNAC ngir mu wax leen fi may jëlee sama alal ji te lépp leer fii amul lenn loo xam ne jaarut yoon réew mi yéen a na ko yow kay bu ñu la déggee fa mel ne da nga bëgg a war ne daal set nga wecci taqoo dara le quotidien na ku set na sangu kii mi ngi sangu ngir setal boppam nga an lan les a ne Aliou Sall rakk njiit réew Macky am na problème de ndax fa mel ne daal fa dugg ci géej gu lëndëm ñuul kukku Thierno Alassane Sall nag ak Abdoul Mbaye Mamadou Lamine Diallo ña ngay sàkku ne na yoon def liggéeyam amul rakk njiiti réew meeg lu ma la mën ta wax yoon ñëpp la fa war a nekkee tëdd njaaxaanaay ku jàdd yoon yoon fa war a dal ca kaw réew mi amul ku ma am nday ak ku ma amul nday waaw na yoon wax ak Aliou Sall ak mboolem ku dugal loxom ci yëf yi ñu teg la ay daan waa congrès renaissance démocratique ñoom ñoo wax bu dee ba nee hee procureur yow la ñuy wax ak ay action yu daar daar nag amul yàggal nañ wax ak Aliou Sall loolu la xaar ci yow de waa ONG global business ñoom ña ngay sàkku ci policier yu Amérique ya ak yu Angleterre ne bés bu fa Aliou Sall teeree bu fay dugg rek nañ tuumaal am na wala amut yoon dana def liggéeyam am déet lépp a ngi suñ kanam enquête yéen a kaay moom di ñu xamal ne jëwriñ ñuy dénk wàllu kopparu réew mi weddi na Ousmane Sonko na ko li nga wax amut ayaw seetal xam nga Sonko fa waxoon ne réew mi am na ab turu jafe-jafe koppar ci suñ budget bu nu tolloog cent milliards jëwriñ bi nee na ko waxoo dëgg ba pare corrigé na tamit Thierno Alassane Sall su aay yéen a kaay dëggal xibaar bi na Sonko weddeeti nañ ko keneen ko weddi mooy maître Oumar Youm jëwriñ ji ñu bi xam nga fa am ñu wax ne autoroute na kaay ne maître El Hadj Diouf avocat moom it weddi na tontu yi saf sàpp Ousmane Sonko nay laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy ne njiit réew Macky Sall dialogue politique bi lépp luñ ca déggoo nee na dana ko jëfee ku jege na seen xel dal dialogue politique bi moo ko bëgg gëm ko jubli ci lu baax waaye buñ foog na fa leen di nax ndax moom nee na man gañe naa président laa léegi lu ma bëgg a def def ko ci réew mi am naa ay pouvoir dara wañut sama loxo ngir ma war a oote dialogue kon su ko defee xam ne na ma ko gëm bàyyi leen seen waxu caan caan yi te ngeen na ko lenga ya jox nañ ko kilifteefu conseil économique social ni ki tëdd ka xàll yoon wam war a jaar mën na xàll yoonu tàggat yaram dem ci stade yéen kaay bi ñu xamal ne Sénégal daal moo jàpp Nigéria di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñaari bal ci benn léegi Sénégal qualifié na quart de finale coupe du monde xale waaw góor li ngeen def baax na ña def lu baaxut nag bañ teg leen loxo mooy benn maire ku jiite ab diwaan ak benn directeur ak ay chinois xam nga luñ defam sulli or ci anam gu jaarut yoon ca parc yoon enquête yéen a kaay a kaay bi ñu xamal ne am na ab waay moom lañu ñu fekk mu faatu ñàkk bakkanam ca gaaraasu Louga ba allah ba tey enquête yéen a kaay dañu xamal na julli korite gi ren ñaari julli moo am Sénégal tey ci talaata ji am nañu julli korite donte bëri wuñ ñi gën a bëri nag suba ci àllarba ji la ñuy julli yéen a kaay bi ne Sénégal wanati na mbaaxam ndax li ni mel yàgg na fi benn réew benn xasamaan benn weer benn diine benn julli ñaari julli léeg-léeg sax ñu yokk ci ñett ëpp na waaye man de ñetti julli ak ñaar benn laa ci yemale man na weeru koor dem rek xëy suba ba ngoon doo lekk doo naan fa métti trop